internet ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu wërëwër ñaanal ñëpp jàmm ñaanal ñëpp jàmm ñëpp ñaanal way dawlu suñu borom yërëm leen tax àjjana fi daw si ñu feebar tëdd ci hôpital yi si kër yàlla suñu borom fukk si rawatina caabi ginnaaw yàlla suñu borom may leen liber sambar in ba fi mu rek tey nañ jóge stade dañoo rek ma ànd ak mag bi daw ñëw fekk si Khalil fekk si Boy Jules Khalil mooy célibataire di nuyu Mawalande di nuyu waa Pikine surtout waa Pikine waa di sant ñëpp daal di sant ñëpp alhamdulilah di sant suma yaay bu baax ak sama sëriñ sëriñ Cheikh Fall Mbawar sama waa staff Djili Diouf Aada Ibra Gueye Fallou ñoom ñëpp laay burisile comprendre nga maam Cheikh père Ibou Faye Zirbal la ñëpp maa ngi leen di bëggee daal xam naa ci kanam dinaa jàllalewaat. génn Pikine yëpp wuy si ko sa sa défaite bi nga jóge mel ni da ngaa si victoire. waaw waaw noonu la noonu la àdduna moom xam nga rek affaire yi moom loo gëm rek mu fekk si la waaw affaire yi moom suñu borom mooy tege ndog ndog moo naan fii ngay jaar lii ngay dund lii ngay dund léegi nag loolu da nga koy da nangu rek xam ne ndogalu yàlla suñu borom la kon nañ koy sant yàlla lépp moom la rek yàlla yàlla defal jàmm. nga jëloon fourrière ñëpp ne Boy Jules fi mu dugg baaxul fourrière daa gën a diis daa daq xeex daa ëpp doole gëm-gëm bi taxoon nga jël ko lan la. waaw waaw gëm-gëm bi mooy entraîné rek xam naa ne bu ma liggéey kër mënu ma loolu dong la. combat yi mujj daawoo liggéey. non dama daan liggéey dama daan liggéey normal mais wax la rek parce que dama ko jël ñëpp ne moo ma gën a diis moo tax ma ne su ma liggéeyee kon mënu ma waaw ma koy encouragé sportif la champion la mbër bu mag la ndaanaan la ma koy encouragé bu baax. tey boo lu ko li ñu ko xamee wul woon à 100 pour cent tey moom la ñëw def. waaw lamb moom lu mu laaj rek ngay def. làmb moom lu mu laaj rek ngay def peut-être nag làmb ji loolu la laajoon tey waaw rayante teg fi baxan bi waaw après waaw li ko ñu gis moo la demee. parce que moom amul kéet moo tax. Eh? daw ci tali. Fourier <laughs> noonu nañ bàyyi loolu comme que làmb ji jaana moom borom baa la jàmbaala la. nga oto otoom daw te otoom fu muy daw. c'est que xam nga oto amul mënul daw ci tali parce que amul ay kéet bu daw ci tali dañ koy fureere peut être nag daa sàcc daw ci tali bi moo tax ma ko mais naa ngi si. dafa bu baax di ko wax ni borom baax la làmb la rek ah waaw làmb nga jóge ci fourrière nag fi ñu nga jëm. waaw man waxoo gëbët nag <laughs> xam nga ñu ngi si ñu ngi fi affaire yi moom. adversaire yi ñu ngi fi comprendre nga waaw samay morom ñu ngi fi. waaw morom comme ñan. adversaire yëpp a fi comprendre nga ay maanaam tey jii nii ay ñàkk jariñu bëgg naa Bour bëgg naa. Bour Sine président général Malika. barki maam Seera Fall bëgg naa ko. Bour Sine yi Bour Sine gis nga li mu yenn ñàkk général Malika. non non garaaw nit ñi bokkul général Malika nga wax ne Bour Sine général nag mbër la mais maanaam bokkunu quoi waaw bokkunu. kon avance bu Bour Sine bu ñëwee ni pare nga pour jël. bu ñëwoon léegi léegi ma séddale ko booy yi kay. barki maam Seera Fall. bara Bour Sine. buru Bour Sine Ndiaye dina ñëw ñu bëre. lu mu def li dafa am mbër ñoom ñëpp na ñëw ñu bëri gàmmu sax bu ñëw ñu bëri. non taxawal. Boy Jules Boy Jules dafa mel ni gars yi dafa am lu ñu la déy de. promoteurs yi ñu ngi may dégg promoteurs yi dégg nañ nañ taxawal sama combat gàmmu gay nga xool. ma ne pour jël Gamou Gueye. waaw dama noppi magum pare. Gamou Gueye day jixaat de. ah na ñëw na ñëw rek. billaahi. kon tey moo tax nga cité Gamou Gueye cité Ndiaye Tine nga xam ne ñëpp ko fi bàyyi. non man moom bàyyi ma fi kenn peut-être mag dam yooyu di maanaam di fi bàyyiwaate dañoo ubbale ak man dañoo bokkul ak man man daal wax ci jaru mi bari ñoom ku ci pare na nga ñëw ñu bare Pikine la ko jële bu ñëwee day ñaar. fii la benn defet la am te ko jëlee. waaw fii la ko jëlee bu ñëwee day ñaar déggoo li ma la bu ñëwee day ñaar incha allah non bu ñëwee day wàcc barki maam Serafal. est-ce que gëm nga ne avance Ndiaye Tine bu man bu ma toog di wax loo xam ne gëm moom man mooy wax rek sama gëm-gëm laay waxee ñi may àndal sax xam nañ loolu ñi may àndal xam nañ ne man chaque jour bu may wax gëm-gëm laay waxee. billaahi waaw. Fourier bi ma ñëwee ñëpp di wax dama leen la jarul wax open presse bi rek ba ngeen commencé di wax dama leen naan wax xañutu fi jour ji xaar ñu matale li ci des te yàlla suturaal nañu comprendre nga waaw di sandaat ñëpp nag di sandaat sama gars yi taxaw nii ñoom Jili Diouf Aada Assane comprendre nga maxu aada bi laay brisili Papa Baldé non ñaari mbër yoo xam ne di nga am ñaari mbër yoo xam ne dëkkuñu Pikine bokk ak ñoom équilibre te damay gis ñoom bu ñu xewlee yow nga dem ñoom bu ñu xewlee nga ñëw muy laaj birisili ak sekk ndaanaan sa diggante ak ñoom ñaar ñooñu Sëñ Tuubaa ak Baay Ñas ñooñu boole kon ñooñu kenn xaju si waaw kon nañ tëb foofu xool leneen Sëñ Tuubaa Baay ñooñu boole ay nit lañ eh. sa yoonu laam bokkuñu si samay nit lañ samay nit lañ waaw bu ma combat këram laay fanaan moom bu ma amee combat fii lay fanaan waaw kon nice. ñu gis mobilisation bi. dafa mel ni deux cent cinquante pour cent bi génn de. ñu pour cent bébé génn. billaahi gaa yëpp ci jàpp Pikine moom amuma seen fay waa Pikine yëpp alkayda comprendre nga waa kàqu waa suus ñëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax waa Ndayane ñëpp Papis Papis gis naa xaalis bi kontaan naa monsieur le maire Amadou Diarra waa bopp Coor comprendre nga maa ngi sant ñëpp ñëpp ñu si jàpp comprendre nga maanaam maanaam maanaam maanaam damay damay sant ñi nga xam ne jàppuñu si waaw ñi nga xam ne jàppuñu si dama leen ñi nga xam ne jàppuñu si dama leen di sant ngir beneen yooyu ñu ñëw jàpp ci Timbo comprendre nga maire yi nekk Pikine yëpp ay ñoom Isaaka gaa yëpp maa ngi bu baax a baax a baax si jàpp nag xam rek maa ngi sant ñëpp ay Thierno Ndomba Ibrahima Diouf maa ngi koy bëggee Boylo Diourilo Aada Ibra Gueye Assane Assane Séeri Awa comprendre nga Assane Tétoise Ibou yëpp maa sant sama doom lay xam nga gis sama sama sama sama bi mafia bi xam nga caaw bi bilaahi ñoom aw ma fay di ñaanal Ama Baldé nag yàlla may ko bu wér waaw comprendre nga waaw moo waaw Youssou moom ñu ngi koy bëggee am dañu koy ñaanal ndam rek di ñaanal booñaa Niang Boy Niang yàlla ko yàlla suturaal ñaan ñi ñëpp dañoo nekk ci guddi gu bët ma ni yàlla ko yàlla suturaal may ko ndam lu wér ci kaw Balla Gaye ci barke Seydina Muhammad yàlla ko dóor mu daanu ci stade bi dégg ma li nga ne yàlla na dóor Balla gay mu daanu ci stade bi Ama Baldé yàlla na dóor Gris Bordeaux mu daanu ci stade bi samay wax la man ma fi ma jëm man Pikine laa dëkk doomu Pikine laa amul lu may ragal comprendre nga waaw di santaat ñëpp nag di santaat waa Pikine ñëpp ku lim da ngay juum ñoom xam nga am sant naa ñëpp billaahi sama waa kër aw ma seen fay sama yaay maa ngi koy santaat bu baax di ko ñaanal guutu fan ak wér ñoom kinne ñoom kumba ñëpp di sant xam di sant waa mbal mi di sant waa mbal mi di sant waa afele di sant waa ñangal bu baax comprendre nga waa lambaay lambaay lambaay yëpp ñu leen di bégee comprendre nga waa daaru muxti waa ñoom fàlluñ waa daaru muxti maa leen sant waa Casamance waa Daaru Jolof Nguuda waaw waa Daaru Jolof Nguuda maa ngi lay siyaar bu baax gis naa taxawaay bi Daaru Jolof comprendre nga waaw waa Casamance ñëpp maa leen sant waa Gàmbi ñëpp a ji jàpp billaahi wallaahi taalaay ma jàpp bu baax a baax waa Mbacke Kajoor comprendre nga ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal jàmm di sant sama sëriñ sëriñ Cheikh Fall Mbawar maanaam maanaam café yëpp di sant sëñ Baara Afia sëñ Baara Afia démb daf maa ñaanal doomu suñu Afia la yow dafa ma ñaanal bu baax billaahi waaw ñu koy santaat bu baax di sant waa koñu Afia yëpp Abdou Gueye ñoom Noé Ndiaye ñëpp maa leen di sant bu baax a baax a baax di sant waa Pikine waa Bango bi waa Café gi ñoom Wéli ñoom Alsaan eh, maanaam ñoom Wéli ñoom Xaalim ñoom Alsaan Sow gaa yëpp maa leen di sant bu baax Ibou Nagoro moom aw ma fayam Papa maa ngi koy bégee waaw mafia boppu coor bi ñoonu beneen affaire la ñooñu waaw waa suuf waaw ñooñu ñoo ñoo defandoo ragaluñ dara waaw mooy Pikine am na lépp noonu la demee maa ngi santaat ñëpp billaay wallaay aw ma fayu kenn mënu maa lim ñëpp waaw mënu maa lim ñëpp comme Amadou Diarra waaw ñoom Mara ñoom Abdou Samb voilà ñoom Abdou Samb ñoom Pam Ndaw ñoo ñëpp maa leen sant bu baax ñi si jàpp ñëpp ñoom Mbaye Ndaw maa ngi sant ñëpp Molo waaw Molo Cissé maa ngi sant bu baax a baax waaw moom jàpp na ci waaw maa ngi maa ngi sant sama benn sëriñ boo xam ne moom bëggul ko tudd turam moom dina xam ki may wax voilà sëñ bi kon ñu ngi lay di la bëggee comprendre maa ngi santaat ñëpp daal sant naa waa Pikine Lamine Koor Lamine Koor maa ngi koy sant bu baax gis naa taxawaayam waa Lamine Koor sant naa ko bu baax maa di sant nag waa marché Zeng yëpp géwél yëpp maa ngi leen di sant marché Zeng ñii képp kuy jaay marché Zeng rek maa ngi lay bëggee ndax man aw lu ñoom palaat dibité comprendre nga waaw mais Pa Omar sama doom nday bi baas moo ma yóbbu bii mu ngi ko fekk xamaa mu ngi Europe instant bii nii Paa Omar yow ñu ngi lay ziar di la wax ne ndam la yow sa ndam la xam naa après dañ lay xool euh, maanaam GP rek mu yóbbul ñu coupe bi. non bi sama coupe waaw waaw aada xam nga séeri séeri aada jooja ñu ngi lay bëggee Mousseye loo ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñëpp di sant Paa Diallo bu baax a baax jàpp na ci combat bu baax ñoom Papa Bale sant naa ñëpp di waxaat jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jaatin dama naan bu ñemee rek na ko jël amul leneen lu ma koy wax affaire affaire da ñeme la rek waaw bu ko ñemee rek na ko jël bër bu ko ci ñeme rek na nga ñëw maa ngi leen di sant nag yéen ñaar ñëpp di leen bëggee célibataire bu bon bi maa ngi koy bëggee <laughs>